nationale 14 juillet waaye fête bi nag ren dafa xaw a rax ndaxte. dispositif militaire euh, maanaam bu force de l'ordre yi bu takko takku la ñu teg que quarante cinq mille membres de force de l'ordre comme ni mu demee woon ca manifestation yi ñu génn loolu la ñu fa amalaat ndaxte Paris dafay ragal ay débordement te yooyu sax dafay faral di am waaye ak contexte bi ñu nekk émeutes yi ñu jógee loolu tax ba ñu teg dispositif boobu ndaxte gune googu di nayal ba ñu ko faatee ba léegi France dafa tàng jër Emmanuel Macron bi nga xam ne jamono ji sax ma nga ca Lituanie di fa assister sommet OTAN moom daal nee force de l'ordre yi Euh, dinañu intervenir ak détermination su ay débordement amee euh, ngir rek fexe ba français yi mën a dund ci jàmm ñu jaxale ko ci Brésil soxna naata ak Jair Bolsonaro moom nag euh, ma ngay weddi conspiration boo xam ne dañ ko koy tuumaal ca digganteem ak Lula mi nga xam ne moo ko wutu ca bopp réew ma loolu nag mi nga ko xamal ci audition bi nga xamee ni démbul la ko doon def moom ak waa police nee mësul jéem jéem euh, ko xañ mu utu ko foofu ca bopp nguur ga ginnaaw ba mu ko gañee ci élection yi bi nag moom mooy ñeenteel yoon ñu koy euh, déglu ca euh, police ci diirub ñetti weer ba mu ñàkkee nguur ga ba léegi foofu ca Brésil soxna naa. Hmm, jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw bu leen fàtte ci ñaareelu pàcc bi dinañ dalal suñu naataango Babacar Ndaw Faye ñu war waxtaanee ci wàllum football lu bëri lu ci mel ni Sadio Mané waaye tamit ñële wutali ji fële ci Arabie Saoudite